la juróom-ñeent maqaama la bu lamboo lim lamboo mooy abu zaydin dafa feebar feebar ba tiire te métti lool gannaaw bi ñu tàggee ko xibaar abu zaydin deena xagsi ci ñoom xaarisa gi bokkam mu tiital leen ñu jógee tiitaange mm-hmm. ndege affaire bi fayre la bañ xàggee ci kët ga mm-hmm. mu niru ne affaire bi fayre la mm-hmm. ñu def definu xel wane ne sëñ bi la ñoo seet si rek <laughs> definu xel wane ne sëñ bi la ñoo seet si rek ngana lekkam leer gana lekk yooyu lay nettali rek <laughs> rek sëñ bu baax a bi leen waxee ñu tane ñu ne ñun mu ne rawaa sole na alxaaris mu ngi ko askan fu ñuy wax nasibin rawaa sole na alxaarisu xaaris ibnu hammaamin kay doomi hammaam xaal mu ne am xala bee koo roon na alxeraaqu xeraaq saatan xo wéy mi ci jëmmi asxaq jamono buñ ko tasxiiree dafay teg leneen soriwut mooy suñ xar yu yàggut yi rek bekkoor da amoon ci xeeraam li ixlaaf anwaayel xaymi ngir wuru jëkk biddiwi niir yi ndax taw bu manqué wa tahaddasa waxtaanee ar rubbaanu setti fi biri fi nasibin ci naataangooy fu ñuy wax nasibin su ko defee ñii dox xam ne ñoo dañ kumpa ci àddina bi yu bari ñoo koy xamal nit ñi ñu wax ne boo demee nasibin dëkk bu naat la léegi wa tahaddasa waxtaane ak rugbaanu sett si biri bi nasibin ci naataangoy nasibin wa bulaniyati ahliha ak yaatub dund ak ñooñ nasibin al muxsibin ñu da nekk ci naataango ne ña fa nekk daal tiranga dëgg ci lañ xaaris nee na foqtaatu ma dal di mooy ma bokk be fanta faftaat ma dal di war mahri yan gëlëm ngay ko jub mahar ndax waxoon na ma ne moo gën a ànd dama ko fàtte woon waaye suree gu ñoon ma ne suree gu ñu buñ ñu defaa rek maqaama bu fukkeel ak juróom-ñeent mu ne rawaa sole na alxaaris su ibnu hammam xaaris mooy def riwaaya xaal mu ne am xala bee kooroon na al xeraaqu xeraaq zaatal way mi jëmmi asar baatu am la ñu tasxiir jamono buñ ko tasxiiree day tegtale jegeem mooy suñu xat yu yàggut yu yi xeraaq daf ci amoon bee koor li ixlaaf anwaa'il xaymi ngir huru jëkk mooy ngir xot ak wi niir yi ndax taw yu wa tahaddasa waxtaanee ak rugbaanu setti biri fi nasibin ci naataangooy nasibin ñi nga xam ne ñooy dox di dañ kumpa ci àddina bi xam ne yu bari ci seen wax la ko nit ñi xamee ñu wax ne nasibin de moom bee ko newu fa naataangoo moo fa nekk wa bulaaniyati ahliha ak yaatub dund ak ñoñam al muxsibina ñu di way nekk ci naataangoo ñu ne waa nasibin dara waxtaxattu ma dal di war mm. mahriyan gëlëm ngay ko jug mahra mm. waa saqaltu ma dal di bokk mm. samhariyan guntoo bay ko jug samhara xaalis ne ma waajal ne kon man maa ngi dem nasibin wa ida raayta risqa asabi baldatin wa xasita fiha an yadiqa almadhabu farxal fa abdullahi wasiatul fada tuulan waxeetan sarfuha wal maghribu man loolu laa jëfandikoo mu hut sama waruwaay hut sama gànnaay faxtaatu ma daal di war mahriyan gëlëm ngay ko jóg mahra waata xaltu ma bokk mooy ma sémboo samariyan gu soobee ko jóg samara wasirtu ma tax ma soobu ci yoon talfitu nii mbirum dana ma sànni abdun suuf ilaa din jëm ci feneen suuf léeg-léeg ma ko ci bii dem ci fële baat buñ ko tuddee muy nakira ñi mm. baamu ko muy nakira mm. xamal ne ñaar ñoo bokkut la jaani rajulun mm. wa rajulan xamal ne ki dikk ak kam gis bokkuñ inna arsana inna ilaykum rasulan shahidan alaykum xam nga yonent bi la kama arsana ila firawna rasulan rasulan xam nga Musa noonu la demee rek moo tax suuf si mbawa sama dem talfidu lii dana ma sànni ardun suuf ilaa din jëm ci seneen suuf wa tajibu nii dana ma ñotti rafon dongo min xabdin tukkee ci xur léeg ma yegg dongo léeg-léeg mu wàcc xur xataa balaxtuha ba ma jotee na siibi maa ngi ma àgg na siibi niqatan mbir moom ma ne kem ala niqdin ci kaw tojit sama gëlëm ngir dox ba tas man ki ci kaw bàyyi nañ ma ba ma tas ma tax man ak gëlëm gi ci kaw tafit la ah neqatal bi romare kem tojit ala neqblin ci kaw beneen tojit falamma anaxtu ba ma yéesalee bi max naaxaa ci wàcciwaayu nasiibin ak xasi bu daaji naat wa darabtu tema texee bi nasiibin ci cër fii maraa ci sam waayam ba ma demee fekk naa fa naa ah, ba ma fa dalee it am naa fa ba loolu ma mën di jaxasoog nit ñi waj al nawaytu falamma anaxtu ba ma yéesalee bi max naa ci wàccuwaayam ak xasi bu daaji wa darabtu tema texee bi nasibin ci cër bi maanaam ci samway nasibin nawaytu xéene woon an ulqiya ba ma sànni at bi ci nasibin jiraani sama dindi ba dama dama fay tega teg sama doq dama naa di at bi xaale affaire dal wa waa taxi dama jàpp ëllaha ñuñ na si min jiiraani ñooy samay dëkkandoo ma ba gis ne daal naa tàngoo ba te man na jaa am Cees dama ne ah man de fii comme deful ma dara danaa ko defaale muy sama dëkk boobu ilaan tax yaa ba dekki wala ba dundu asana tuwaat aljamaadu ma de jamaat mooy ma nekk te amul loo wata taxaada ak na nemmeeku arda xawmi suufa sama nit alñaada taw yu way nemmeeku ma ne fii daal moo doxagum dal bi fekk baax naa tàngooy xeraam te del si fa wallahi giñ naa ci ne maata mat modat badar ñekku wut sama nagu bi naw haa ci nelawam wala tama xadat faatu wut mooy génnut laylati sama guddi han yawmiha ci bëccëgam doon han alfaytu lu may may fekk bi abu abu sayd aba saydin abu saydin asorooj yi may ko jug sorooj ye joolu muy wandeelu fi arjaayi nasibin ci wàlli nasibin wa yaxbitu te muy dajjitu bi ha ci wàlli nasibin xabtal musaabin dajjitu ñu ñu jot ñi wal musibin ak way jot ñi ba ma dogoo ci toog fa daanaka fan boo mat daal bala moo ko fay am xam ne maa ngi jaxasu nit ñi mm. fekk naa Abu Zeyd ndeke fu ne lëmbe na ko ci dëkk fu ne lëmbe na fa wallahi gis naa ci yàlla mata mat madat ba dar ñëpp wut mm. mooy jàllar bépp wut muqlati mm. sama nagu bët bi naw mi haa ci nelawam wala tama xadat faatu wut mooy génnut laylati sama guddi an yow mi haa ci bëccëgam doona an alfaytu ndara may fekk lu may may fekk aba seydin abu seydin asoro ji may ko jug soroj te joolu muy wëndeelu fi arjaayi nasibin ci wàlli nasibin wa yaxbitu te muy dajitu biha ci nasibin xabtal musabina dajitu ñun jot ñi wal musibina ak muy jot yi woowa yansuru mu ngi wisaare min fiihi ci gémmiñam ak durara kàddu yu mel ni wurusu duru mu wax xam yu rafet wayaxtalibu mu ngi rattee bi ci ñaari ténxam ak dirara soow yu bëri waaye it nag dara baax fa wajattu ma fekk bihaa ci nasibiin jihaad sama jihaad xat xaasa mu làq max na man man ma gis ne gannaaw fekk naa fi Abu Zayd tumaranke jihaad dafa mel ni ku doon jihaad am waqit yi sama alfassa ba de benn xasaara mujj na mu taw aman ci siyar tey man doo nga laa am na ñaareel gannaaw fekk abu seydi walam asal dañu ma at ma wante topp keram ay man baasa fu mu buuree bu ko ma ànd moom ci kaw fu mu ma jóg waa saqitu may for lafdahoo baatam kullama nafasa bépp bu tuddee xam yi muy wax itam may def lu mu wax rek mata ko ilaana ilaana haraahu bagaar ko maradun hopp soo xam ne im tadda tàllalu na madaahu mooy diiram wa haraqatu te seeñu ko mu daaw ay paaka ba gannaaw gi ab tawat dal ko ba yàgg te diisoon na sonal ilaa naraahu ba gaar ko mm. maradun xopp soo xam ne mm. im tadda tàllalu na madahu lefam mooy diire na mm. waaraqadu te seeñu ko mudahu ay paakam mooy métti woon na sonal ko xataa kaada ba mu jegeñ yaslubuhoo de ko rékki sawbal maxyaa malaanam dund tawat bi xaw na ko yóbbu wa yusallimuhoo te mu jébbale ko ilaa abi yaxya jëm ci abu yaayam mooy de fa wajatu ma te fekk li fawti luqiyaahu ngir faat ak abu zeydin wan qitaaye suqiyaahu ak doggent ak nandalam maa li nga xam ne yejidoo dana ko fekk al mufadu ku ñu soril am maram walis jàpp téefam wal murdan ak ku ñu nampal inda fitam fa faram fa feram léegi nag Abu Zerin bi ko tawat bi ngëbee xam nga dafay gaare suba dootu tëjee kenn ah yi daan amee ci mu amatuñu ko loolu nag tax man ma yëg tag ak mbir torop ma yëg tumaranke torop mel ni kuñ doon nampal ba ah mu waaw wajattu ma dal di fekk ma dal di fekk li fawti luqyaahu ngir faat ak dajeeg moom ndax feebar bi moo ko tax a gaare daal kuy génn di dajeeg nit ñi wan xitaan yi suqyaahu ak doggent ak nandalam subaa yiñ daan amee duñ ko mën a te am ndax tawatam bi loolu amee tax ma fekk maa li nga xam ne ji doo ko de fekk al mu maa du ko ñu sori na maram yi wala càkku téefam wala mu dama ak ku ñu nampal hen la fitaam yi fa feram summa urji fa topp yam yam leer mooy ñu wax te du dëgg bi an na rax na woo ci naka tayleem xad xaliqa wel na wa mix labal ximaami wewu dee xad xale xaaju na bii ci mu ne ñu ne dee na ndeke fayre la deewu fa xaliqa dal de jàq sax bu woo ay xànd ndooram li irjaabil murji fii na yam yam leeg way yam yam lay ñenn ñi de wax lu du dëgg seen xibaar bii moom dëgg la am du dëgg bala ñu caa xam dara tax na mu tiital ñu ñun gay abu sëy tax na mu tiital ñëpp daal fa xaliqa dal de jàq sax bu hoo ay ànd ndooram li irjaabil murjifiina ngir yam yam leeg way yam yam lay wansaaloo ñu toppante ilaa xaqawatihi jëm ci dingireem moo ji fi na de way gaaw ñépp daw jëm këram xayaara ñi jàng ñetti way yi xayaara yamiidu bihim sajwuhum ka annahum sadamal qandarisa asalu lxuruba wa attul jiyub wa sakku lxudur wa sajju ruusa yawadduuna law saala madhu lmanuunu wa gaalat nafaisuhum wa nufusa ñu jàng loolu xayaara mbir muñ de way gërëm mu ne ñoom ñëpp gëlëm ba dem kenn du jeg sa bopp yëmmiidu dana jaayu biim ak ñoom sajuhum seen njàqare koo ci gis jaaxleem nga tax na jubal doxin sax jubal taxawaay ci dox sax mënu kaannahum daanaka ñoom ittadama dañoo nampu alxandari sa sàngara daanaka daal seen defin daf ñu fàttali daf ñu gën a misaalal naasa sukaara wa hum bi sukaara kaannahum daanaka ñoom istadoo namp nañu alxandarisa sàngara asaadoo yolal nañu alxuróoba mbuusi rongañ yi jooy nañ ba xamatuñ rongañ waxatoo xotti nañu aljiyóoba xooti ñu xotti seeni yére ba mu de sagar wasakoo ñu pes alxudóoda lex yi ñu dóor seen bopp wasa joo ñu xaañ aru sa du woon wata wat asaaloo yolal nañ alxurooba mbuusi rongañ yi waxaaturu xotti nañ aljiyooba poos yi wasakkoo tas nañ alxudooda lex yi wasajjoo xaañ nañ ak óosa bopp yi yowat doona dañ doon mébat law saalamat hu bu juboo woon ak moom alma noonu dee waxaala te mu yongaan nafa isahum seeni waloor wunu ko sa ak seeni bakkan dañoo mujj de wax ne su fekkoon ñun ñëpp ñu dee mooy tax Abu Zaydin def bi kon jaral nañ ñun ñëpp ñu de te moom mu def su fekkoon dañoo ñàkk lu ne te moom mu ne bi jaral nañ ñu miraas suñ bopp ñàkk lu ne te moom mu ne bi mu ne sàlla métti lu dee gi ak gën a boobu dégg nga bàyyi ñes bi biir dana wax ne mm. law kallafa llahu l-ibaada fidaa'ahum bilmaali la yabqa bi dunyan masrifu aw qaala bal fa fidaa'uhu bi nufusikum la taraddiyaa balaka amla mm. mu ne su fekkoon ne yàlla dafa wax ne xam ne nit ñi seeni xalal lañ ko jotee man bu ñuy wirde banque yi ñu àddina si ba dara du fi amati waaye banaam dana fi ne loolu moom jaxal na ko ñi wala bu ne jotee leen ko bakkan yi su ñëppay dee genti ay banaam dana fi ne loolu moom jaxal na ko fi waxoon Moustapha Bassa Kamil Moustapha Kamil Bassa akoy marsial da ko xane yaa xaadimal islami ajra mujahidin fillahi min xuldin wa min ridwan mu ne ko yow mi liggéeyee l'islam tey ba yàlla wàcce la ba yàlla wàcce la gërëmal faya kuy jihaad ci yàlla te nga ko ba xam nga gërëmal yàlla sa liggéey du fi jeexal tiyaabu dootu jeex mm-hmm. nga de dugg ci àjjana doo fa génnati xul mm-hmm. doo ridwanullahi ba mm-hmm. benn yi gërëm ayaa xadimal islami ajra mujahidin fillahi min xuldin wa min ridwani abu zeydin deena mu nekk xibaar bu xam ne benn xibaar tollu wut ni moom nopp bu mu dem xanaa yal na defen rek ngay wax a tawal jasirata hatta jaani xabarun fasiyantu fiihi bi amalihi ilal kasibi mu ne benn xibaar la boo xam ne dafa baxee ko ca jasira ba ba àgg si ci man muy xibaar boo xam ne lenn képp moo mën a tax muy mu xoyof ci man mu doon fayre waaw mutanabi moo ko wax ba may marsiyal uxtu sayfi dawlata xaw dawlati xawlata ci la ko waxee mu ne xawla deena ku ko dégg xanaa mu dee fen rek moo lay tax a def ba mu ko déggee dama ne lu dal ko naa nekkul mel ni ku ko gëmut ba ma xamee ne dëgg la nag talaw damaa joxe ba may rongañ di ma fotal de ah hatta isa lam yajid li sidquhu amalan sarixtu bi damhe hatta kaada yasraqu bi gën ko baax baax léegi nag gaañu ñu ngay dem qaala wax na arraawi ak melokaan mi mu wax qaala wax na arraawi aji solo ji ne bu kuntu nekkoon naa fii man de bokk ci ñi nga xam ne il taffa dajee nañu bi asaabi ak i taalibeem wa axadda te ñu gaaw ilaa baabi jëm ci buntam yàlla def na gaañi bañ yi jëm ci kër ga man ànd naa ci yoon wa bu kuntu nekkoon naa fi man de bokk ci ñi nga xam ne iltafa dajee nañu bi asaabi yi ànd ki gaayam wa axadda te ñu gaaw ilaa baabi jëm ci buntam falam man taxay naa ba ñu àggee ilaa finaa yi jëm ci dingiréem bañ demee ba àgg ci këram wata saddaynaa te ñu gaarlu listinsaa am ba ihi ci wut a xam ay xibaaram bañ demee ba àgg ci bunt kër ga dañoo wane rek ne ñun sëriñ bi lañ seet si xoon mel ni rek ñun dañoo gëj a xam ci moom dara daal di ko seet noonu lañ dikkee bi loolu amee barasa génn na ilay naa jëm ci ñun pataawu doomam biñ ñëwee waxuñu liñ dégg dañoo wane rek ne mbiru sëriñ bi moo ñu hump rek ndax gëjee bi comme dañ daan dajeeg moom tey ñi setti ko bi doon amee nag doomam moo génn mu taratan daa ji muy safataawu ñaari tuñam ah bi mu génnee it jàkkaarloog ñun eh, mandargaam xel mu dal mandargaam bégte lañ gis ci gisuñ ci moom melokaanu ko ne ci tiis fastatla fastatla maa wuññi laaj ko mm-hmm. atilan ah, seexi dëgg-dëgg góor gi fi sakati yi ci tawatam mm-hmm. ñu ne ko waaw góor gi nu mu def ak tawat bi liñ dégg waxuñ ko ko mm-hmm. ñu ne ko waaw góor gi nu mu def ak tawat bi fastatla naa wuññi laaj ko tilan seexi dëgg-dëgg góor gi fi sakati yi ci tawatam wa kun haqwa harakatihi ak dëgg-dëggu kàttani yëngatum ak itam jamono bi fu man-manam toll fa qaal mu ne doom ji ne ee xat kaana nekkoon na nag moom góor gi fii qabdatil mardati ci ngëbëg xob waarkatil ma waarkati ak laal ak tàngoor mm. ah moom nag feebaroon na ah xat kaana nekkoon na fi xabdatil mardati ci ngëbëg xob mm. waarkatil waarkati ak laal ak tàngoor mm. ilaa ilaan soppahoo ba ñeeri ko àddana fu songoog yaramam dafa jeexoon takk wata soppahoo te jege ko mooy sappu attalafu halaku ah moom nag feebaroon na sori woon na su ma mën na topp xiwle allahu yàlla taala bi taqwiyati damaihi ci dëgëral ndetiti ba kanam kana yàlla ñu baaxee rek sarax ñu ko waaye sori na nag na yàlla wéral na ko faafaaxa mu xiqi mi ximmaleku mi ne may yi ci xamam sori woon na nag waaye yàlla di ko mbaaxam rek daal di ko def loolu la ñuy wax su ma mën na topp xiwle allahu yàlla taala bi taqwiyati damaayihi ci dëgëral ndesiti ba kanam faafaaxa mu ximmaleku mooy mu xiqi mooy mu tane min ixmaayihi ci xamam mooy ci tawatam farji'un na ngeen dellu adrajakum seen yoon kon man ngeen dal di ko rek ngeen dellu wandoo te na ngeen ñoori insihaajikum seen ak tiit ni ngeen xàndee nii meloo tiitaa nga defeen ci yéen jaru ko de ñoom donte waxuñu ku leen gis rek xam na ne dañoo tiit su yeboo seen xel dal man ngeen dellu farjon na ngeen wëññiku adrajakum ci seen yoon wan doote na ngeen wëññi intihajakum seen ak tiit fakaan daanaka góor gi xad-xadaa xëy na waraaxa te mu gont wasaaqakum te mu nàndal leen araaxa sàngara góor gi daal daanaka rek lépp manoon léegi mu man ko man na ko fi mu ne lépp lu mu seqoon daanaka rek mën na di ko doxal soo boo seen xel la waaw feebaroon na sori woon wa yàlla ko dëpp ci mbaaxam fi mu ne nii bu baax su yeboo seen dal bala yàgg daal lu mu seqoon ak ko mën doxal fa kaan daanaka mbir xat-xadaa xëy na waraaxa mu gone wasaaxa kum te mu nandal leen a raaxa sàngara xaarit ne ko azam naa ñu màggal busra bu mbégteem ñu ko ah yow de yaa jara waxat li ñu wax de loolu de loolu ah, de neex nañ noonu lañ ko wax waqa tarax naa ñu sas al ixtiraax mooy da ngaa bëgg dara gaaral ko ki nga ko bëgg wan ko ne ko su ma nee dana ma su man da xamit nag danaa nangu ñàkk a mën gi du diisal ñàkk a mën gi façon sàkku hin boobu moo tudd iqtiraa li daal su ma nee xam dana ma neex ah su man da xam it nangu naa ne ngànt la di taluma ñàkk gi mu ne faxtarax naa ñi sàkku an naraahu ba ñu gisal ñu ne ko ah ndax dañ fa mën a àgg léegi buñ fa mën a àgg danañu neex ndax gannaaw moom jaral na leen jox du yemale gis ko xëy na ak ñàkk koo waaye buñ fa mën daxaa génn nag hmm. képp kuy dem kilifa hmm. xam nga ne kilifa yi dañ daam gan loolu xam nga gis la ñàkk mën a loolu moo tax affaire bi istiraax hmm. la <laughs> toogaat ba jëkk na mu dellu waxal ma sëñ bi na ma ne ko ko mu dellu ko waxal yoonu ñetteel ma ne ko xaamu yee waaye man na xamatuma jàmbaar ak dem xamatuma jàmbaar tey jii ni mu xatee mel ni xamatuma ma jóge la jóge te booba dalu gum daloon mosuma nekk ci bunt man ci liggéey laa nekk waaye jàng jàng rek ma doon moom de waaw te loolu ma ne ma ne waaw xaw ma xaw ma man nag du ne xamul jàmbar ko baax a baax moo tax waxtara naa ñu sàkku an naraawu ba ñu gisat ko fa daxala mu tàbbi moo di naan daaji xamle bi naa ci ñun mu ne waaw xaaral ma seetal leen ko ba demee xamal ko ne ko am na ay gan yu fi ñëw yu demee nangam demee nangam diw ak diw la nangam ak nangam lañu wax ne moom la dox su ma xaraja topp mu génn àddinan daaji digal lana ñaan ñu ba génnee ci kilifa génne leen man ngeen yëpp ay yar la yëpp ay teggin la mu ne fa lëqi naa ñu dajee min hu ci moom laqal jëmm ju ñu sànni wa lisaanan ak lammiñ talqan wu daa ji fasaa mu ne ñu dem ba fekk ko fa mu nekk jëmm ji jeex takk ndax feebar bee ko sonnal waaye xel meeg yi moom fa mu ne woon la nekk nit ku sagoxee la nit ku mën a wax lu leer wa jalas naa ñu jékki muhdiqiina de way wër bi saririhi lalam ñu dal di toog wër lal bi teeg teeg lal bi ah daqa mooy teeg na wër na alxadiqa xamu dañ ko firee toolu dër day doon tool boo xam ne dañ ko wërale dara dañ ko wërale ko bax bax wala wërale ko léew wala wërale ko biir loolu ñuy ko wërale pour mën koo moo tax ñu ko wax alxadiqa ci ahdaqa la baxoo moo jëqi ne foofu la baxoo mu ñu toog ñu wër lal bi ñu jik moo jëqi ne da way peeg bi sariiri yi lalam mu haddiqiina da way xool alxadaqa mooy perab bët hadiqa mu haddiqiina da way ilaa asariiri yi jëm ci rafet xar kanamam ah bi ñu toogee wër lal bi ah ñun ñëpp dañoo jàkkaarloo moom de ko xool comme li ñu waxee xool borom xam-xam nangam borom xam-xam nangam fa xallaba mu jàllar bi tarkohoo gisam bil jamaati ci mbooloo bi ñun ñëpp bi ñu toogee wër ko daf ñu xool ñun ñëpp waxaal mu ne ittaloohaa feeñal leen bint saati muy doomi léegi waan sada mu sadd mu am ay wëyum wëy hmm. leen ci seen teew gi daal hmm. ci la ko sama xel mi dajee mu wëy ko nii kon na ngeen ko téye mooy afadiyallaahu hmm. wa sukran lahu min illatin kaanat tuaffiini wa man na bil buri ala annahu la budda min xatfin sayabrini ma yatanasani walakinahu ila taqaddil ugli yunsini ba mu xàgg rek mu ne xaafaani ye jàmmal na ma allahu yàlla min hellatin ci xopp soo xam ne kaadat jege ñoon na tuxafiini dama raafal wa sukran dana ma sant sant tawar la bu ma gaaroon hmm. xaw na ma koy jële hmm. waaye yàlla wéral na ma ci ci mbaaxam hmm. maa ngi koy sant xabaane yal na xabaane jàmmal na ma allahu yàlla wa sukran dana ma sant ak sant la wa ñaal ko min xellatin ci xella boo xam ne kaadat jege ñoon na mu tual fii nii dama wa man na xéwle na moom yàlla mm. bil bur i ci wér mm. ala an na waxaan rek naka luy mbir mm. laa budda de jaas min xattin ci dee fay bi ne xet na may xet yàlla wéral na ma ci feebar bi firigut ne dama fee def ba faw bu mu war a jógee bu jotee rek mayeta naataani fàtte fàtte lu ma moom yàlla wéral gi ma wéral nekkul ne daf may kanaayal pour bañ may rey déedéet lim ma sédd ci àddina mooy jeexagul rek mu dama yéexee ba mu jeex walakin woo li fi nekk moom borom bi yun si dana ma yéexee ila taqaddin urli ba ci jeexagul buur waa ma sédd moo jeexagul rek in umma bu dogalee seedee lam yoo ne du jëriñ dara mooy du ko mën a fekk mm. xam yi mun bu xasee ba mm. dara mënu ko fekk dee rek mooy am wala ima kulay bin dit kaaraanga kulay bu mm. yax dama xaar min ci dee kulay bu dafa mos a xaar benn kumbura benn picc ku dëgg nee na picc ma bala am ku dëgg picc ma loolu indi histoire boo xam ne jur na xare buñ xare ñeent fukki at muy xarbul bësoos hmm. ku xamul lu mu xar moom kenn du ko laal waaw mu ne nag yi ma ko lay mën a demee hmm. man dafay dee wala yi ma ko lay bindee kara nga ko lay bu hmm. yaa mii ne dama xarbul bu jom de ma ubaali man nag faale ndax danaa ndax jege na yow mu hoo tayam am mu xira walla yéexeef na alxaynu dee ilaahi ba ci beneen waxtu munoon na dee tey ak dee ëllëg la yow la wax dégg nga bu baax a baax moom na la nee ma daal jëlee mm. du ma ko leeral rek mu jëlee moom bi tey rek mm. kaa baqiyatul umri indi ma mm. laha samanu mu ne ndesitu dund amul njël ci man du ma ko jëndee dara wa in xada xayra maxsuubin min assamani su xeboo sax mu wuuteeg li muy la ma xamoon taar ba ma xamoon ba neex ba ma xamoon xel mu dal ma su yeboo sax li des ci dund bi du ko ne yoo xam ne bu la nekk fi mooy tax nga dabaatal ko xam ne yoo xam ne ku ko nekk fi mooy tax jagal ko seetlu bu baax a baax am na lu la raw ñu jëlee te dabaataloo ko da nga ko ñàkk rek am na loo yàq ñu te deferoo ko yàq hmm. hmm. e e ba dala topp rek gannaaw na li nga defee ci nga mën a dabaatalee li la raw li nga defee ci nga mën a defaree li nga yàq kon daal ëpp nay sàgganee daal ëpp nay yemale ñàkk ko itam tel bu baax a baax waaw baqiyatul umri indi ma laha samanun wa in xada xayra maxsuubin min assamani yastadrikul maru fiha kulla faid wa maa ubaali faale wu ma adanaa ndax jege na mu woo teyam amu xira wala dogaleef na alxaynu illaa hiinin ba ci beneen wax waaye yu baxrin ana bandam fi hayaatin moo nekk ci dund boo xam ne aradanaa gis ci dund boobu albala ya musiba yi suma tub lii nii topp ñu ràppal ma dund boo xam ne jànkuwanteeg ay métti métti ba ràppate dikk rek lay doo dund jaata moo ñi mottali tuuti rek moo ci def dégg xaala xaalis nee na fa daaw naa ñu fa ndax du fata daaxay na wala ñu ñaanal la ñu xal ko bimtidaadil ajali ci tàll ci tàbbi ci ci tàllalu bim bimtidaadil ci tàllalu dig mooy yéex wartidaadil wajali ak dellu njàqare mu ne ñun dañ ko ñaanal yàlla mu bàyyi ko fi lu yàgg yàgg yàgg ndax moom bu fi jógee lu bari lay àndal ci lim xame te lim xame njëriñi bindee kon bu fi nekkee mbindee fii la fi kon ku ñaan mu ne fi dafa mel da ngaa ñaanal ñëpp xiw rek setloo bu baax a baax moo tax ñaanal ko mu yàgg fi lool saxat bi sihatika alxaaraatu wabtahajat biha almakarimu wan hallat biha diyamu warajaha samsa nuurun kaana faraqaha ka annama faqduhu fi jismiha saqamu tey bu daw la moo xopp yàlla def mu wér mu tënna bii na ko ba feebaree de maj du moo feebaroon moo tax bi nga wéree it maj du moo rek wér gi nga wér ci la xare yi wéree feebaroon nañ wér gi nga wér ci la teral nit wéree waaye feebaroon nañ wér gi nga wér ci la mayee xalal wéree waaye mayee feebaroon bi nga feebaree feebar bi jant bi yëgoon na ko sax seetlu bu baax jant bi yëgoon na ko sax ndax lii taaral bëccëgam yi ci yow la doon bayee ko moo tax bi nga wéree na loolu leer bu bees boo xam ne ci sa wér gi la ko amee de waaw te ñàkkoon na ko waaw saxat bi si hatikal xaaraatu wabtahaajat biha al makaarimu wan xallat biha diyamu warajaha samsa nuurun kaana faaraqaha ka annama faqduhu fi jismiha saqamu ba mu xaal ga rek baax na boobu dégg mu ne fa fa daaw naa la woo ñu ñu la woo ñaal ko bim ci daadil ajali ci tàllalu dig warte daadil wajali ak dellum njàqare su ma tadaaxay naa topp ñu waxante ilal qiyaami jëm ci jóg litiqaay Ibrahima ngir seet yokkat loo ñu wax ne nañ jóg ndax boo seetee ku feebar lay sunna mooy bañ fa yàgg ndax ku feebar lu ko xasal dafa yow nee nañ dem la tubri man na maridan fi musaalatin yakfika min zaka tasalun bi harfayn tuuti moo def fa qaal mu ne kallaa tiiri mu ne yéen mën a guleen a dem bal li fi nekk il basoo sax leer hmm. bayaata yawmikum bëccëgu seen maanaam leer leer ak seen bëccëg weexaayu seen bëccëg yow mu mooy li ko dalee ci tulon samsi hmm. ba ci xurub waa yow mu mooy bëccëg hmm. il basoo sax leen bayaata yawmikum leeraayu seen bëccëg indi fi man tey moom dangeen may sedd kendal gi di tas woo ngir na ngeen saafara bil mubakkati ci wërante xaj na feebar naa waaye jamono bi xol bi wéetaay la gën a yëg ci mbittig su fekkee xendu ngeen waxtaanal ma ak ni melen na meewa subaa dana gën a yëg tane fa inna munaajaatakum naka déyaale yéen xóotum nafsi dundu suma bakkan la ah ndax wax ak yéen itam nag dafa am lu mu yëg suma yaram wa meex naa tisu un fii te mooy in damay damay ñu wétal fa taa rey naa ñu tollale mardaat hoo ngërëmu fa taa may naa ñu moy ñu ñu xaaru mu asaat hoo mayam kon ñu jàng loolu ñu ne gannaaw loola ma neex ah nañ def li ma neex naa ñu jublu xalal xadiis yi ci waxtaan wi na ci maqaama ñaar fukkeel bi la de fukk ak juróom-ñeenteel ci fukk ak juróom-ñeenteel bi la gis naa ko waa xabal naa ñu jublu xalal xadiis yi ci waxtaan bi nam xudu mbirom danañu faat sub dawoo diwam wanul xiita danañu sànni saba dawoo puritam mooy ñu soobu ci waxtaan bi a ah, de waxtaan waxtaan yu am ndax borom xam bu toll nii ah boo demee ba siyaare ji ko mu bëgg laa karalee lu jar ñëw fi il faut ngeen waxtaan waxtaan yu am ilaan xaana ba jot waqatul maqiili waxtu wee ndaw ñu dem ba mu bëccëgee xam ne dallu jot na wakkalat te not te lot ala sunu làmmiñ yi anil xaalis ci nene wal xiili ak niis ci waxtaan wi lañ nekk ba mu bëccëgee xam ne dallu jot na wa kaanate nekkoon na ma yow man débis xaaj xaamiyal wadiqati bu daa ci tata tàngoor yaa ne al xadi xadiqati bu daa ji ñor ci toolu dër te mu nekkoon bëccëgu tàngoor lool nag ba ne ba mu bëccëgee xaala abu sayri ne innal nuhaasa gëmmentu day xatamaala jéngal na mu ala naaxa doq yi wara wada te mu sàkku maa xacat yi bëri abu seydi ne ah fi ne ndee moom gëmmentu dikk na képp ku xam ne daan nga dallu bëccëg sa jëmm yëg nañ soxla na woo te moom gëmmentu xam aji xuloo la alat du kuraaji tat ji xuloo waxit bun te aji labat la yoo xam ne lay rëdd def ko del te gëmmeetoo ak luñ la mën a wax ne moo koy jeexal lu dul dem ne la dem ne la rek moo koy jeexal kon fasiloo na ngeen jokk xam la woo buumam bil xëy loola ti ci nelaw bu cëg comme comme dikk na ah, nañ dem ci noppalookaay yi ñu dal ñu dallu mos tuuti nelaw waxtu doo te ngeen roy fii ci nelaw yi bëccëg yooyu bin asaari ci hadis almanqoole yi dañu toxal da ngeen jublu ci topp sunna ndax sunna la xiiloo fa inna sayatina la taqiilu mu ne de leen xendal dama suuti nelawe bëccëg di dallu saytaane du ko de def gis nga bu baax a baax gis nga bu baax a baax xaala wax na arraawi aji solo ji topp maa xaala li mbokk ñu def li mu wax waqil naa ñun ñëpp ñu nelaw mm. waqaala mooy mu nelaw xaala yaqiin bokk na xaala yaquulu xaala nelaw la yóbbu yàlla ñu nelaw mu nelaw fa daraba dal di dóor mooy sadd allahu yàlla a asaani ci nopp yi yàlla dëpp nopp yi mooy yëg dem waa raxa mu sotti asinata gëmmentu bi laaj faa ni ci mbati bati ñëpp tëdd nelaw xataa xaraj naa ba ñu génn xan hukkumin wu joodi ci àtteeb xam ñun ñëpp dara yu diis lañ ñu wa surim naa soppateel ñu bil wu joodi ci yandoor xane du joodi walit julli ci si baat dew na ci si yu diis a diis la ñu fekk ba julli waxtu ba ma say xas naa xewuñu illa wal xarru ndare tàngoor bi xat baaxa dal na wala yow bëccëg bi xasaaxa magete na bis bu tàng la balaa ñoo xeewu nag boo fekk na tàngooru digg bëccëg jeex na dugg nañ ngoon te tàngooru digg bëccëg noo gën a jëmee ci rek day wàññeeku moo tax nit ñi naaju ngoon lañ gën a ñeme ci naaju yoor yoor tàngooru digg bëccëg fekk yoor yoor day yéeg waaye buñ demee ba xam romb nañ digg bëccëg jëm ngoon nag day wàññeeku nga bu baax a baax ma ne ma tey xas naa xewuñu illaa wal xarru ndare tàngoor wi xat baaxa dal na wala yow bis bi xas baaxa mage na mooy bis bi jeex na fa takkarraa naa ñu daal day mooy ñu raxas suñuy xel li salaatin hañ ma wéy ni ngir julli ci sibaara tàkkusaan boo gisee ñu mu wax ma wax ni mooy dañ leen dut bi waa tey naa ñuy joxe maa li ne xal la wàcc na mu mel ne day na ci baax mooy farata bi ñu war a def suñu diggante suñu borom di def su ñu gaaw ñu buur mooy ñu buur li li jëm ci laxas ilaa mul xarri xaal jëm ci sànni waaye teg yi bagaan ba jullee ñu ñëw daal ñun ñëpp daal dañu buura ndoor rek jëmali fañ teg bagage pour mën a takk def faltafata dal di geesoo abu seydin abu seydin ila siblihi jëm ci xalogam sa te mooy abu seydin geesu doom bi wakkaana te nekk na doom saakilatihi ci jikkoom wasaglihi ak melokaanam doom ñi daal nim déggu hee moom da ko niru bind niru ko jikko mu ne ko ay fasin ak i kinaaya inni man la ixaar danaa jortu abaa hamrata xiif gaa yi duñu xam li muy wax nit bàyyi ko tudd hamra la ñuy foog waaye xiif lay firi inni man la ixaar danaa jortu abaa hamrata xiif qad adrama muttahal aljamrata qalbi asaye seeni bagga ay na xiif fastane nanga woo abaa jaameen palaat wutal palaat defukaay fa inna woon naka moom palaas bu soxlaa kulli jaaya mooy mm. mbégam bépp waar di bu te na nga togg ko bi abin waay min ci mburu mm. ah nga boole ci mburu mm. asaabiri kadaa ji muñ ala kulli day min ci bépp tooñaa ngi muñ kat bi da nga xamal lakkatu mburu bi bu jëlee farine bi ni mu koy def balaa mu ko lakk muy mburu lu ne dana ko ko jàllarbe wala bu ko dun mu lakk ko diw fariñ ni muy rek suñ ko defaroon ba nga mën koo ko noonu rek du baax ci yow lakka lakkati muri noonu dañ ko jàllante wala bu ko dun ñu lakk kum jiwa ne la bu baax kon asabiri ji muñ ala kulli day min ci yëpp tooñaange su ma xam si topp na nga dëgëralee bi abi habibin ci nga boole ci yàpp nag almuhabba bi kale ko ñu sopp loo illa kulli labibin jëm ci bépp aji xelu almuqallab kale ko ñuy jàllar bi bayna bayna ihraqin ci diggante lakk watan di bin ak mbugal nga boole ci yàpp mi nga xam ne ku am xel ku ne dana ko bëgg mu ngi bokk ci juróom yi nga xam ne talaw duñ leen di delloo an an radde xamsin xad nahal hibbu labib lahmin firasin labanin tamrin watiib mu ne yooyu delloo an rëddi xamsin xannahaal hibbul labib lahmin firasin labanin tamrin watiib ñoo duñ leen di delloo lu ci tegu wa ah wa ahim wa ahim na nga woo bia bi sa xiifin ci xorom ah nga boole ci xorom fahab ba saa baax na huwa moom min alibin caaji miinu ma seet téere boobu bi nga yi bokkul bi abi saqibin lu mu ci bind mel moyen la ci bind ah mi moyen déedéet anamu waaye bi abi saqibin numéro bi lu mu doon am dëgg nga trente bi alqim beneen ga ana ma xorom moo tax waayim na nga xoo bi abi saqifin beneegar saaba saa baax na wooma min alifin taaji miinu waxal mum te na nga xoo bi abi xaw nin xorom fa maa mis loo déet kemam min xaw nin taaji dimbale wala wi saxdarta boo teewaloon aba jamilin aba jamil aw ñam la bu ñuy wax baqalu la jàmmala kon mu rafetal ay tajmilin ku mu ci rafetal wahayahal hoola hoowal bi ummil qura dafa naa mooy sakk baaj al muzakkara ba de buñ fàttaleku bi kisra ci kisra wala harisa wala tatanaasa bul fàtte fàttelu abaaj umma jaabirin harisa fakkam aji bari lahaa ñaal na ko min sakirin ci aji fàttali kon ñu jàng loolu ba beneen yoon ñu ummal faraj mu ne ko nanga wax ummul faraj mu ne ñam wi juudaab lañ koy wax ñu ngi ko liggéeyee ci suukar ak yàpp ak leneen waaye xawma ma ko nag su ma tik topp nga rey bi bi haa xaraja dit bakkaat dala ci waar waxtim te nanga mottalee bi abirasinin mu ne xeetu xabiis la foo ma maslatu kulli xasin mooy nitu waaye bépp aji jàq wayin taqrun boo lënkalee bihi ci moom abalan la ñu ne mooy faaloo ay ñam la yoo xam ne xaw ma leen sambu danga far isma ga sa tur mel bu xalaay ci way nayi wa iyaaka maa ngi lay wattandekuloo wasid naa al mujji fay ak jege ñaar ñaari way yam yam la yi mooy ñaari yi tàkk testu ak ibriya taxtu ak ibriya qabla istiqlaali xumalil bayin ca njëkk temmu góor wayi tàggaloo way yaaka maa ngi lay wasa dekoloo andi ma seet al murji fayni bay ni ànd ak jege ñaar ñaari wu ñaari wuy baatal yi te mooy sabtu ak ibriya qabla istiqlaali xumuri bayin te njëkk temmuk waru waay tàggaloo yi waysa nasaa bu génnee nag alqawmu nit ñi xanil miraas yi walis jànkuwante mooy bu ñu lekkee ba pare wasaafoo te ñu joxante loxo aba iyasin torson mooy pompokaay e bu ñu lekkee ba pomp nag e faatif na nga wëral alayhim ci ñoom abasar wi cuuraay na nga indi bi faatim na nga wëral alayhim ci abasar wi cuuraay ba indi woon naka moom cuuraay cuuraay on waa nu sar wi adresse sang la fa faqiha dal de ibnuhu doomi abu saydin la taifa rubusihi way na buy junjëm bi la tafati tabisihi ci sew ak jàqeem xale bi ni ku xeexu lool tax na li góor gi wax ruqu ruqu yëpp xam na fataafa mu wër alayna ci ñun bi tayibaati ci yu neex yi wati ak gàtt yi ñu kontaan ci ngana léegi torop ci yu neexee gàtt yi ilaan adanat ba xamle assamsu jant bi bil maxibi ci so ba nga xam ne jant bi sosi na falamma ajmaana ba ñu dogoo nag ala taw dixen ci tàggatoo ci tàggatoo tàggoo xul naa wax nañ la wa ko dañ ne ko Ah, alam tara xanaa jiituloo ila hadal yawm jëm ci bile bis albadiyan bu daa ji héeme kayfa bada naka la feeñee subhoo subha xam tariran daa ji tat wa musiyoo ak ni feeñee ngoonam mustaniran daa ji leer ki yàlla dékki ma gaw na ci jàllar bi mbir de ma bayna tarfati aynin wa intibahatiha yugayiru llahu min xaalin ila xaalin diggante xafa xippi léeg-léeg yàlla jëlee ci mbir ci mbir yóbbu suñ suba tey gi la lu ak suñ ngoon ak tey gi la lu ko neex loolu lañ wax yëpp la alam tara xanaa gisuloo ila haadal mi jëm ci bile bis albadin bu daa ji héeme kay fa badaa naka suboo subaam xam tariran daa ji tax wa ak ni feeñee ngoonam mustaniran daa ji fa sajada mu daal di sujjóot hatta ataala ba mu sujjóot mu sujjóot sujjóotal sant ba sujjóot ba summa rafaa topp mu yëkkati rasahu boppam wa am sada mu yëkkati boppam daal di wéyli waqaal mu ne la tey asan hendan wëpp min farje ten tajul kuram la tey asan balde naagu hendan nuwo bi fa xew-xewi jamono yi min farje tajloo ba gën a mu wëññi alxuraba njaqare yi tollu ndiggante rek tànga foog ne dootu baax loolu du mbir falakam sa moomin bari na ngelaw lu tàng xabba loolu hupp na mu summa jara topp mu daw wan xalaba te mu jàllataku na tiiman de ngelawu na tiim bu neex mbir léeg mu dooree nu jaaxal nit te mu jéeku kontaan loolu loolu dafay am wa sahabi makruhin bëri na niiru lu ñu sib sana saa bu ma xalla mu far wa maa sakkabate sottiwul xiinu tiis lay tawut danay am mooy nit gis na lu ko jaaxal waaye loola mujj na sedd lam ragal gisu ca dara wa saxaabi magruhin bëri na niiru lu niiru lu ñu sib sana ma xalla mu far wa maa sakkabate sottiwul dara wa duxaane xat bin bëri na saxat xiifa moom ragalees na min wu ci moom famat sabanante birut la wa ñaal la bun tàkka tàkka bëri na musiba wu saxat te tàkkut mbir jaaxle am te la taxoon di jaaxle ëllëg doy ci dara wala taala ma taala yàgg na bu fenkee alata njàqare waxara ba te mu sox fi ak yi ci mujjeeteeram fasbir na ngay muñ isa maanaa ba bu bañalee raw woon tiitaange wala isaama naa ba bu la jotee raw tiitaange fa samaanu jamono abul hajab boromi kéemaan jamono doo bëri kéemaan wa taraja te na yaakaar min rawhin ilaa ci yërmande yàlla la taayifan ay sew-sew yoo xam laa suuf tasabu def leen jortu ngay am ngay ci yërmande yàlla rek qaala xaaris nee na e fastam lay naa ñu fite minu ci moom abyaatahu ay wéyam alxurra yu de wéy rafet wéy ñun ñëpp ñi bind ko waaw wawaalay naa ñu toflante lillahi ñaal yàlla taala suura sant ñun ñëpp ñu sant yàlla wa waddaanaahu ñu dal de ko tàggu masroorina dañuy bégalee bi birrihi ci njekkam ñu kontaan torop déedéet bi burihi ci wéram ñu kontaan ci fekk ñu ko fekk mu wér maxmuurina dañuy muuree bi birrihi ci njekkam